tey sant yàlla julli ci yonent bi di ñaanal suñu waajur bu jiitu yàlla yërëm ko xare ko àjjana bépp waajur bu jiitu di ñaanal suñu yaay des yàlla may ko gudd fan ak wér bàyyi ko suñu kanam ak waajur yëpp ñi fi des ba njaboot gi yéen a ngi ñaam ci moom yàlla dimbale ñu mottali ko di nuyu nag grands comme ni nga ko waxee fans yi kenn amul seen fay ñoo ngi fi depuis ci suba ñii fi lañu ndekkee ñii fi lañu añee ñu ngi leen di sant bu baax a baax a baax ñi fi nekk ak ñi fi nekk même ñi nekk ci diaspora bi ak ñu nekk ci région bi yëpp di nuyu tamit suñu mbokk journaliste yi reporter yi preneur de son yi caméraman yëpp ñoo leen nuyu di nuyu force de l'ordre yi tamit bu baax a baax a baax di nuyu suma tambour major monsieur di nuyu Mbayang Loum l'animatrice vraiment kontaan bu baax di nuyu xarit am jàmm yi équipe Parcelles yëpp ku da ngay juum member mbër yi fi ni ci am combat yëpp ma ngi len di ñaanal yalla mu may len ndam ñom tamit le 24 ni ci amul combat yalla may len combat te ñu am ci ndam inshallah ñu dugg ci waxtan bi. d'abord ñoo ngi tamit dëkkandoo yi bu baaxa baax parce que li dafa metti tay bu ñu xewlee. kenn ci dëkkandoo yi du am jàmm ndax nit ñi ak biru yi ñoo ngi leen di masa bu baax a baax a baax di wax leen ñoom it ñu yokku ñaan yi yàlla may ñu ndam nuyu réew mi di biti réew mbokk yi mbokk yi bisu la 24 novembre bis bu mag la ci wàllu lamb ñuy ñaan jàmm yal nañ ko fekke yal nañ ko tal buñ ko talee it yal nañ ko fekke te buñ ko fekke it yal na ci yàlla. ñi ne Modou Lo moo dàq bëri ñi ne Modou Lo moo ëpp doole ñi ne Modou Modou Lo moo gën a taxaw physiquement ndax loolu yow Modou Lo en euh, da nga koy confirmer wala doo ko confirmer ndax loolu da nga koy confirmer tey sénégalais yëpp dégg ko yaa mën yaa ëpp doole doole yaa gën a taxaw physiquement yaa dàq bëri ndax danga koy confirmer wala loolu danga koy bàyyi chroniqueur. waaw am na li nga xam ne moom waxu supporter yi la wala ni nga ko waxee chroniqueur yi mais man moom ginnaaw yàlla xam naa sama bopp bu baax a baax te nii toog di xool muy xam làmb yëpp xam nañu. ñun du ñu xeeb bis bis bu ñëw dañ ciy def fu fulla fayda ak jom ba tax na lépp lu ñu war suñu entraînement suñu préparation nekk nañ ci dañu yaan yàlla rek mu may ñu tal ak fekke ba le 24 lu ñu liggéey ñu won ko ko incha allah. ñu gis ñu gis ni combat bi moom nga gën a préparé sax moom nga gën a préparé que sa diggante ak Boy Niang ak Ama Baldé ci lu ñu gis ci d'après léegi euh, rumeur yi nga xamante ni jot nañ ko ci réew mi lan moo waral loolu Siteu da nga gis ni dafa dangereux wala cité wala fit wi dafa mën comme li gars yi fitam lu ko bëtam may fitam du ko ko xañ moo tax euh, Modou dem préparé wu carrément ci biir combat waaw ñun lamb bu mënti am parce que lamb la ñu def métier di ñu xeeb benn benn benn bis ba tax bis bi ak bis ñu romb moom la ñu yemale dañ ciy def suñu ngor ak suñu jom man li may wax chaque fois rek foo sax bëgguma ñàkk waxuma la nag làmb xare la ñëpp di xaar muy say soppe muy say bañ ba tax na lépp lu war ci lamb ji def nañ ko def nañ lu ñu war a def suñuy mbokk suñu staff di leen yàlla mañu ndam la 24. est-ce que Siteu bu xeex ak yow est-ce que Siteu bu xeex ak yow di nga ko fekk ci xeex bi wala bu xeex ak yow da koy baaj xeex bi ñax ko jëm koo jàpp. ñëw moom ci bëri bi xam nga ay mbokkam ay mbokkam xam naa duñ ko conseillé bu xeex ak man parce que naar kenn du ko woo ci njuuxum soow waaw mais li ñu mujjee wax rek amaat moom loolu laa koy fàttali mu dëggal ko. waaw lu tax loolu lan moo tax ay mbokkam duñ ko seetaan mu xeex ak Modou Xarañ Lo. waaw non loolu jarul di wax ñëpp xam nga yow mii xam nga. non man kay xaw ma dara dama ay mbokkam duñ ko digal mu xeex ak man. dama ne lan moo loolu Modou Lo. waaw parce que ay mbokkam xam nañ ma bu baax a baax. ay mbokkam xam nañ ma bu baax a baax. ragal naa su taxawee ne day xeex man dina def bëggee génn saako yi daal. Ah! jërëjëf jërëjëf ngi leen di nuyu bu baax di leen siyaar Modou maa ngi lay nuyu bu baax di la masawu coono bu baax di masawu mboolem ku fi teew gaay liggéey bi metti na trop sama première question Modou mooy adversaire bi ngay bëreel di Siteu dafa min secteur bi diggante Parcelles ak Grand Yoff ak Grand Médine dugg na fi ñeent combat am fi ñeenti ndam daan na fi sama Pape Mor Lo daan fi sama Sos ak Papa Sow ak Sarko cette fois ci mais yooyu yëpp nga yëg fii mooy frontière bi fucking bu fi génnee doon fi duggaat incha allah. ok dañu dégg Siteu ci biir ay waxam mu ne teg fi roi bi wala ma dagg bopp bi boo bañee dama lay rey. Ah, wax ji xoromu la. loolu wax ji xoromu la kenn du jàkkaarloog Modou Lo naan ko da ngay dagg bopp bi. dama koy ñaan rek di ko fàttali. waaw ni mu doon waxee keroog. bu ñëwee la 24 na ko may jeexale ak yow mu mel ni daf laa ñime jàkkaarloo yow ne la maa la man fuuf lu la góor mësul wax ba pare ne la loo bañ mu yëgsi bul ko jàppal bis maa la mën fuuf loo bañ mu yëgsi bul ko jàppal bis maa la mën fuuf ba koy wax jàkkaarloo ak man de xanaa ci télé mais fa physiquement jàkkaarloo ak man góor mu dama ko wax à distance mais buñ taxawee dina ko rëcc incha allah Modou Lo ñu ngi lay nuyu di la ku gis na ngay waxee sax xam ne teg daal coono ndax préparation moo mel noonu di féliciter ñi nga xam ne organisé li nga xam ne moom mooy ëppal test bi donte liñ bëgg lépp à 100% mën ne mën naa ne réussir na ko à 90 pour cent parce que nit def mu mat yàlla rek boo ko bañ maam ñaari question bi des mooy Modou Lo te lu gis ni sa combat ak Siteu au début dañ ne woon amul danger da ngeen a ñaan da na a rusante yu dem ba ci biir données yi changé Siteu di wax ngay wax lan moo war a communication boobu changé seen digganteeg Siteu lan la. waaw ah, non dafa lekk avance ma lekk avance faaw ñu waxante jëlewu ñu avance pour raayante wala pour ay neexalante dañu jël avance pour def signature yu saf ñu bëre mais pas ay jël avance di raayante wala di non. loolu moom moo tax bi des chroniqueur yooyu ñu si bëpp jox la favori à cent pour cent moo dóoman moo ëpp doole moo dàq bëri direction boobu nga ko bëri waale ci mbër boo xam ne tey neen yaa ko mën tey lan nga koy dundee yow tey favori boobu ko may du ma ko doxee du ma ko jëfee parce que su ma ko bàyyi woon xel kon dina yolo man mais li ma nekkoon démb tey laa ci gën a ba tax na loolu waxu ni kii la rek quoi la mais li mooy xaar man xam naa ko te incha allah yàlla na ci defal ndam bu soobee yàlla. ñu ci bëri ci expert lamb yi gis ni Modou Lo dafa yokk maas maas bi doole ju àndal la wala taayu Modou Lo ba mi nga xam ne moom moo gën a xam boppam ndax daa doole ko wala doon lu waaw xam nga man moom comme dama amee staff muy entraîneur ci musculation wala ci liit bi wala ci boxe bi.

coow ak moom ci kàllaaji coow ak moom ci lu bëree bari déstabiliser ko ñëw bëreeg moom mu ñàkk est-ce que Modou Lo mi ngi bàyyi xel surtout perturber ko le jour du combat si biir enceinte bi pour mu a am lu mu bëgg ci biir combat bi. non man yaakaaruma mbër mën ma perturbé ci làmb parce que du ma gën ci làmb nag te yàlla dogal na tàkkusaan bu ne am naa ko bu ñuy wax tàkkusaan bu mag ba tax na géew ma mbër mu mën a déstabiliser si géew am na non non su ma la déstabiliser su ma la déstabiliser wul kay doo ma déstabiliser macha allah la deuxième question est que Modou Lo et son waaw bé la c'est question mooy mooy Modou Lo dañoo gis ne que combat mook Ama Baldé combat mook Boy Niang communication chaque jour si Ça vous ni am Papis ñu suñ tourné ñeu jël li nga xamné ni ni moy mooy eh, mais mais c'est une question mais on n'a pas le droit de poser. ndax damay poser né damay poser né ndax modlo Lo et son staff ñoom ñooy tek stratégie à chaque fois ñu né modlo ak Papis ils ont des déphasages ou pas stratégie la wala lan la. merci merci waaw li ma lay tontu loolu gars yi question la xam nga fi dañ fi ñëw. ñëw pour waxtaan ku nekk wax sa xalaat wax li nga xam mais dama la bu nit bokkutee ñooy laxasooy goj yow sa waajur wala sa rakk wala sa mag des fois ci kër gi coow mënul ñàkk waaye bu lépp amee ñu toog a waxtaane ko loolu lépp jàll alhamdulilah. jërëjëf Modou Lo ñu ngay nuyu di la sargal di la laaj Saliou des fois ñoo ngi gis nañu Siteu sa adversaire yokk na poids bu mosul yokk ci biir combat bi ndax loolu arrangé na la wala. waaw waaw man poids solo lu ma ci lamb bëri naa ko yor poids bu ne poids lu poids les daanaka sax ñi may bëral yëpp ñoo may ëpp d'habitude ba tax na ay poids bu mu yokk ak yëpp mu dérangé wu ma. Modou euh, Lo euh, Siteu ci ay qualité yi mu yor ndax am na benn qualité bu Siteu yor ba mu métti ci moom. non non comme ni may wax rek mbër la am na ay mënit am na ay faiblesse xam nga moo tax na lépp ñun lu ñu war a jàngee saaf bi jàng nañ ko ci doom gaw ma dara di ma soxla ci woon incha allah mais def leen pare rek jox jigéen ngi bu baax baax a baax. dañu gis mystiquement lépp loo xamante ni làmb mi ngi ko laaj euh, Siteu moo ngi ñu gis Modou Lo dafa waxoon ne croix ci mystique mais gis nañ saa Touba ak yi muy génn démb ñu dégg ko fi nga xam ne mooy jonwaar est-ce que mën nañu xaar Modou Lo mystiquement mu ñëwaat am dee. xam nga nag loolu moom boo ko laajoon ñoom ñu koy def mu gën a neex. parce que man loolu du sama domaine man ci yi laa nekk ak récupération yi moo tax na am na li nga xam ne ñoom nga koy laaj mu gën a neex. ñu ngi euh, nekk ñëpp. ñu lay fay fan. Euh, li ma lay laaj mooy bi Modou Lo relax gis nañ wax boo xamante ni macha allah dawul kenn Modou boo xamante ni tout temps yaa ngi gis. la preuve en est gis nañ benn clinique boo xam ne am na te ni yaa ngi ci daara xam ne la ah, xam ne moom waxu waxu waxu koy siisu la man ak daara lu yàgg la lu may def te kenn xamu ko mais nag comme des yenn yi fësal ko ndax ñi ko mënta defuñu ko di ci roy loolu moo tax ñu def ko. ne aw ma sarax bu may yóbbu ci daara wallahi laa azim li may def dama ko def te yàlla tax yéene wu ci sarax yéene dama ko yéene def ko te yàlla tax kese kese kese kese ma ci mooy comme dama ci relaxé da nga may gis fu non a relaxé ci combat yëpp amaana ni ñoo bàyyi xel gis nañ feew ñoom seen mais man combat yëpp dama ci relaxé amul lu may daw amul lu may nëbbatu fu ma war a dem laay dem fu ma war a dem mbëtee suma tànk mais combat yëpp laa yemale. Siteu pour mu réussir ci Modou Lo il faut mu tegal ko lu metti ndax gis nañ ni fi nga génne ñëpp macha allah Modou ak li muy def li muy attaqué bu may xale ñu ñoom ñëpp ne pour mu réussir ci Modou il faut mu may ko lu xottee est-ce que loolu tam yaa ngi ko a Siteu Modou Lo mu may ko lu méttee métti pour mu mën a. réussir lu Ama Baldé réussir ak ki nga xam te ne mooy Boy Niang. xanaa dañuy xanaa dañuy daje mais góor moom du ñëw pour teg lu métti ma koy bàyyi déedéet lu métti kay buñ koy teg moom lañ koy teg incha allah te gëm naa ne jour ba maa koy teg lu métti daan ko incha waaw salaamaaleykum salaamaaleykum sa parcelle képp laay nuyu parce que amul ku may bàyyi bi ma fi ñëwee gis naa niñ jàppee làmbalom mais yal na leen yàlla dooleel si yoon bi ma doon ñëw parce que loolu dafa nekk sama xol parce que nit chaque jour nga dem benn koñ daaj fa coono mais da ngay dem beneen koñ doo fa daj benn coono te dëgg neexul kila la suturaal rek moo la yiir mais kii moom dina xam ne ni moom am nay question parce que ale boo gis am na retour la laaj mooy est xam nga ne bàyyi nga xel ni Sa Touba jël na risque bu mag première question. waaw risque. waaw àdduna dañuy wax. qui risque rien n'aura mm-hmm. rien. waaw wop wop wop wop wop wop sa yaram a dara faw nga def dara maa la wax loolu yéen a ma jàpp risque loolu gëw ma ni risque la gis nga Sénégal amul kenn ku fi moom dara man nii parcelle sama papa kër la fi am frontière bi xanaa ci buntu kër gi la yem. daa war a leer mais munu ma tere. waaw ku dugg parcelle wala ku dugg feneen. waaw lamb la ñuy def. ku ci nekk ni ko santire yegee ko nañ la bàyyi nga defee ko. parce que ku ci nekk seen liggéey ngay def gis nga ku wóoru li ngay def am loo xam ne doo ko sax bàyyi xel ku li ngay def muy entraînement yi teg ko ci yoon am loo xam doo ko sax bàyyi xel man foofu laa taxawu man loolu laa gëm dama gem, yàlla moom moy maye ndam ndeysaan sabab bi nag mooy entraînement te maa ci suba mais ay branche la rek yu ci làmb vraiment waaw beneen question bi si des mooy adversaire bi biñ koy indi dañ koo xeeboon mais bi mu jege dañ koo naw beneen bi si des mooy xeex lañ ko ñëpp digal na ko boo mënta xeex ak Modou ko xamoo ki ngay ndax nga say yëpp parce que Modou ku yóbbuwul say matuwaay ci xeex yobu na la ardo te boo ñëwee beneen changement léewtoo ngay léewtoo yow pare nga pour samp cagaar yi bu wootee si xeex bi da nga koy éliminer si xeex. jarul may tontu tontul nga ma dèjà. waaw waaw ñëwal question nga ma ko dèjà. ñëwal parce que wax nga ko ne ICS sañ nga xeex ak Modou Lo li may wax chaque fois lamb moom laa am fulla fayda ak jom lépp lu ma am dama koy def ci géew gi. ka benn tàkkusaan la ñëw ma gàcce ñi may àndal na ñu beneen beneen bee question rek moo si des gëm nga ni moom moom moo fa teg jeexal mais yow yaa fa teg dese loo koy wax si loolu da ngay dolliwaat cere li ma ko tontoon rek waaw teg jeexal lu muy teg yëpp bisu làmb ja amu fa dara incha allah. kon daa exposition wax waxi Modou. xel gën jërëjëf Lambalogue. Modou maa ngi lay nuyu. di nuyu ñi ñuy seetaan yëpp. Modou dama bëgg a tuuti rek ci aspect technique. ndax ku ne xam na ne Siteu jàkkaarloo ngeen yéen ñaar mu yëkkati kàddu jëmale ko ci yow. ne la bu arbitre bi nekk waaw ah, ma dellu si waat. waaw yaa ngi déglu kay. ma ne dama bëgg a ñëw tuuti rek ci question ci wàllu technique ndax sa adversaire bi di Siteu dafa yëkkati ay kàddu jëmale ko ci yow mooy képp koo xamante maa la sut ci làmb maa la mën te loolu lu mu gëm la est-ce que nee na nga une fois arbitre ne prix nga daw dugg ci tànkam da lay suruxal comme fi mu jaarale say morom loolu loo ci mën a wax. ah man est bu ñeneen ñi jaar foofu laay jaar tamit loolu moom xalaatam la wax mais man. ñu bari ñi ma ci ñi ma bëre ñoo ma sut te yàlla defal na ma ci sutura moo tax ay problème mu njóoga yooyu noonu aw ma ci problème fii parcelle am na tay bu nekk ngi fi macha allah aw ma lu may sóor ci loolu. macha allah léegi beneen bi. ba pare damay dégg ñu koy woowee yal mbin yal mbin mooy borom kër mais nee leen ko yar saxle ak gara mooy borom dëkk bi ñëw yalmin boroom kër la yaa saxle mooy boroom réew mi te borom réew mi mooy yilif borom kër yilif borom quartier yilif borom gox yi Modou Lo nee na moo yilif waa jàmm gën macha allah mu ñëwaat ci beneen bi beneen bi mooy Modou saa yooyu bëree ak pied droit sa nooy neex lay doon combat bi ñu bëgg a xam Modou une fois arbitre ne prime da ngay buur wutali Siteu xeex ak moom wala da ngaa fas yéene bëri ak Siteu lan nga mën a wax ci supporter jërëjëf waaw mais nag xam nga du dem guerre daan ngeen yi lay yóbbu tamit xam <laughs> ba tax na lu ñu liggéey daal ñoo ci liggéey ak staff bi di xaar bis ba incha allah ñu jaar fañ doon jaar am ndam ko indi ko parcelle incha allah. mais mënuñu toog fii te gërëmuñu ñu waral fii taaru muy comité d' organisation bi ñuy organiser open presse bi maa ngi leen di remercier bu baax a baax.

de ça va alhamdulilah seega li ma lay laaj mooy man damay ñëw ci côté boo xam ne dama gis ne daa mel ni da ngeen koy xëccoo man ci li ma xam muy côté séréer si surtout ndox mi parce que bu ma gisee laay ndàngaan ci sa côté gis yeneen i séeréer yoo xam ne xam naa leen ma am ñu ma laaj ñoo xam ne ñu ngi dëkk ci côté ci biir île yi ñu mel ni am na ci ñoo xam ne ñu ngi ci sa côté mais moom ci ay waxam dafa mel ni foofu yow amuloo fa dara ci côté séeréer si rawatina ndox bi Modou ndax moo si ci séeréer si kan moo fa nekk numéro un. xam nga amoo ko mais man foofu maa fa jiitu laay mi nga gis baa moom du tey.

Bazar, fépp fu baax laa fa am dama ko maîtriser dama bokk foofu noonu hmm. di nuyu sama waa village Fandène suma village yaay di nuyu waa Taïba sama village papa mention hmm. spéciale parcelle daa am benn mbër dama ko laaj mu wax wax boo xam ne man dama ko jàppe sax waxu fan wala supporter mu ne ma Modou Lo ma ne ko combat si tak Modou mu wax ma sansi si ta am l'an 2000 l'an 2000 ne athlète boo gis mu ne Sénégal fi mu nekk nii Modou Lo moo ko gën a pare ndax Modou day confirmer waxi l'an 2000 jooju ba dimanche bu ñëwee day wan Siteu loolu wala déet. Ah, waaw l'an 2000 la. lu koy wax galas. te am na li nga xam ne comme li ñuy wax rek saabu du fóot boppam mais. yàlla daf ma dimbali ma am sens macha allah am parcelle lépp am fi macha allah ay xale sawar luur lese mi luur tay mooy lépp naa aw lu ma nam am na parcelle Lamine di leen wax rek ñoom maa leen ñaanal di ci jiital Franc combat moog Ama Baldé ngeen ñaanal ko yàlla may ko ndam ah Petit Lo mi am na combat ngeen ñaanal ko ndam Talfa am na combat ak Mbacke Faye laay Birago tamit am na combat Thiès Anaconda combat bi tamit ak Mamadou Ndiaye Vieux Top am na combat ak Sey Jambar ak Pakala ñoom ñëpp parcelle dëkk. Mamadou Ndiaye ak ñoom ñoom baalu yëpp mais ñaanal ma leen ñu parce que lu ma nekk ñoo ngi ci tey bu nit ñi mën ma gisee kontaan ñoom dañ ci bay waar bu rëy rëy rëy rëy parce que macha allah ay xale yu sawar lañ ma may dara di nuyu tamit estaafu Rock Énergie ak estaafu jàmbaar yëpp. bu ñu nangee tuum Giro Giro Sera Sawen am na ci combat ak Tafa Mbër ñoom ñëpp yàlla na leen yàlla may dam. incha allah dana laaj dana combat bi sama combat nga bëri ak Boy Niang ma laaj la nga ne sama combat la parce que confirmation la war a doon